Sénéguinja, numéro 1 de l'immobilier au Sénégal. Star, chacun son style. Vie colorée, vie parfumée avec Fly. Sivop. Avec Joker, Yai chef. Novotel. Mayonnaise onctueuse et délicieuse. Savon pâte, savon poudre, savon dur, la main, l'hygiène et la propreté au quotidien. Orange monnaie père une ñëpp 144 gais, Miriam Balsen seen Tamoulen taamu Orange monnaie Orange monnaie dal ku ko doto a Orange. Savour ton lait Dano et sois fort. Baobab Hightech. Belle Kitchens, des cuisines personnalisées. Hôtel Amaralis, Terosali, Regus. Golden remercie ses partenaires stylistes. Avec Bacho Boutique et Francesco Smalto, l'élégance reste un mode de vie. Papa Gastro. Espace Beauté Spa, un instant pour soin. Surfez, choisissez et achetez à des prix imbattables tous vos produits de beauté et make-up sur sunushopping.com. sunushopping.com, le meilleur site de beauté pour tous vos achats tout en finesse. sunushopping.com, le plaisir du shopping en un seul clic. Mango. Complexe Sophia, l'univers de la beauté L'expérience fait la différence. Commandez votre costume africain en ligne sur www.keifaworld.com et faites-vous livrer partout dans le monde. Keifa, la mode autrement. Flormar, professionnel en make-up. Devenez encore plus belle, sublimez-vous. Golden remercie Maudou Gay, artiste peintre. Negura Music Group, leader dans la production musicale. Casino du Cap-Vert. leeral.net ay xibar ci tang tang bi leeral.net ay xibar yu woor ak ay yu Master Office Déco absolument tout pour votre bureau et votre maison Aïcha. waaw ma. yow looy seet. sama tic-tic yi. démb dama demoon marché jënd ay tic-tic loolu laa war a boole ak lii wax man est-ce que lii duma ko boole ak coton bu weex sax. ma gisoo sama tic-tic yi. eh Aïcha tic-ticu lan. waaw démb damaa dem dem ay tic-tic ba suñu set setal bi dañuy for mbalitu tafes maman xaaral ma. eh kaay kaay doogal fii mais eh, Aïcha lan la. maa ci lan xamoo ci lan ah yow eh, Aïcha foo doon liggéeyee dugal doon loo fa nekkoon directrice nga fa nekkoon liggéey bu baax d'accord naa yàlla moo la fa jëlee nga ñëw nga ne da ngay def restaurant ma bañ loolu mënuma ci dara ma bàyyi la léegi daal amuloo leneen looy def wër di buujumaan di for ay mbalit. ah e a man juruma doom buy for mbalit dégg bu baax li ma la wax dégg loolu danga dëgër bopp nag xanaa xamoon ne koñ bi dañ fee am ay nawle te man bugguma sama benn nawle di ma yab rawatina yow xale bu ndaw nga dégg bu baax li ma la wax ah. maman nawle yi ngay tudd noonu li ñuy def nii seen njëriñ la yow mii sax sa njëriñ la xanaa kay kuy for ay mbalit dajale sàndi loolu ñep lay arrangé. la ilaha la bo xamone lima xam di nga régler ya nga duggal sa bop ci ngaamu gaynde de dégg nga bu baax lima la wax yow lan la mëno bëgg lu baax ci sa bop xam yow yaay kan xoolal ci famille bu baax nga bok nit ku baax day fonk bopam way yow. mama li dal jarul nga ci mer lii jar jar kese la duñ ko def chaque jour li une fois en passant kese la. <laughs> dina la rek dinaa la ree kay damay fàttali ko ay at ci nga nek xalé bu ndaw suma la xolé rek sa kanamu papa rek la gis ci yow kep kep nga mag nak doli ni lo ngank do ko bàyyi na sa baye meloon lu mu ngank momit du ko yàbbi ah kon papa bu fi nekkone instant yi day nangul may def baye ba dom ja doom ja nday ja jeex na léegi bàyyi ma dem solo ci boy non non après gel bi elle m'a vraiment trahi demande ak ben baay bo xamante bon c'est vrai que baye bi leneen la ko doon defaral mais man ak mom liñ ñu jotoon dund quoi lépp après lépp naas ni mais bon bref man mom légui sama dund dama ko yombal quoi léegi moom samay studio rek nii dund bi ak sang jeex na fii rek ah yee booy son so nice

Flies no circulation, oh my friend. Mm-hmm. on the signal, I down it to the low. It seems to lie beyond. Nice. I just. a girl, I'm in love with you. I ay, ay, I I. ay, ay. Now I want to sing from my heart. Now, girl, I'm in love with you. It seems like I am. Nice. I just. Encore, encore. Essaye, essaye, boy. Mm. ya annabi ya ipa baby ubil sa kholbi duga maji baby cause you know

من انفورماسيون اللي عملت بان <gasps> كل دغلو وسون خالد بوباس بي ميم توتي مون لا فنانك قاوا اليوم ولا موسو عمل فني يخسخ pourtant docteur bi waxon na ko ko de waxon na ko bo noppali ko rek di nga mën a wayaat Est-ce mi ngi kontaan. waaw nu xew qu'est-ce que t'as. xale bu nekkee xaritam dafay kafoo reetaan mais man daal lay bañ a gis su ma gisee c'est comme si que dama ko reyal taawam. ça fait combien de temps déggoonte woo leen. xamatuma ko sax yàgg na. Khalil tu ne l'as rien fait génne na son bu bees ok c'est bon.

pourtant non ofuma la sax c'est que fan des femmes c'est si lu grec. rek ah non désolé je pourrais pas mu garaawul d'accord merci Vous avez man maa tax nga toog fi ba léegi mën de lan quoi tu parles Oumy bàyyi sa dof tu sais très bien de quoi je parle man mal invité mal présenté présenté Akil tu savais dès le départ que j'avais des sentiments pour lui Voyons, soyons écoutés. yoon nekku ci lu la neex def dit ben, yow seet nga dit si li ngay wax mën a Akil dara rien d'accord Oumy ba mu sotti ba je suis loin d'être folle tu crois que je remarque pas ta façon de le regarder H24, tu aimes ses statuts, ses publications. Qu'est-ce que tu n'es qu'une sale hypocrite. Penna. Penna. oui est-ce que mon avez une interview. interview Je non te pour ma page YouTube là bon oui. Euh, oui ça va. Euh, dama vous dis que Aïssa un mhm. ñëw ci bi nettoyer tu ku une parce que nga dem waxtaan ak mag nous ndaw d'accord ànd ak yow lan waral li nga def ah, parce que ñun dañ bok ci gox bi donc luñu mëna def ci gox bi rek il faut ñu def ko té xalé yi comme mag yi ñëpp and nañ ci bima ci waxé ak ñom d'accord nañ ci donc nañ def luñu mëne rek. Euh, ba nga ko doon def amu benn problème ak mag ñeeg yoy parce que amna ño xam dañuy d'accord ñi duñu d'accord. au contraire man dama dem rencontrer mag yi mag yi waxtaan seen biir après ñu wo jeunes yi ñëpp taxaw. ñëpp tew mais dama gis ne li liggéeyu mairie la xana mairie mom du def liggéeyam. non si si si mairie bi en tout cas mu ngi def lu mu bon ñun tam il faut ñu def lu ñu meun ay wuma alaykum soxna ci wa ñen bal ma re waru mën wax de mais xam rek lepp su amé tay grâce à Aïssa Fall mo tax tay ñun ñepp dañu wara a Aïssa Aïssa Fall mo waral yëpp am mo jéné gaay ñepp ñëpp fi pour man dal sante dal dañu waral ah ah sama gaay yi waaw Aïssa Fall la de Aïssa Fall Aïssa Fall Aïssa Fall Aïssa Fall Aïssa Aïssa Aïssa Aïssa Aïssa Aïssa Aïssa Fall Aïssa Fall Aïssa Fall Aïssa Fall Aïssa Fall Aïssa Fall C'est à ce moment qu'on a découvert qu'elle avait un cancer. Et quand bien même j'étais directeur d'exploitation de Golden, je ne pouvais pas subvenir à ses besoins ni assurer son traitement. Mais euh, vu que Yak ABG est pourquoi demander quoi aide En effet, ABG était comme un père spirituel pour moi. C'était un grand ami. Mais lui aussi, il a ses problèmes. Il avait fait un burn-out. Tout le temps, il était entre deux avions, donc... Tu sais, femme a été une femme merveilleuse, sublime. Mais derrière cette personne extraordinaire se cachait une femme orgueilleuse. Elle ne voulait tendre la main à personne ni embêter personne avec ses problèmes. Et la maladie a eu raison d'elle Pas exactement femme a été plus forte que la maladie. Mais en ce qui me concernait, elle était très émotive. En plus, une femme a décidé que sa vie ne valait pas la peine d'être vécue. Je suis désolée, Fadel. Merci. Mais a ben adage bonan. Les plus faibles se vengent. Les plus forts pardonnent. Et les plus heureux oublient. Bonne nga Aucun. Je veux juste que justice soit faite. J'accomplis tout ceci contre Golden pour que Mage demande pardon. Et ce sera terminé. Oui. Parfait. Les choses sérieuses peuvent à présent commencer. Oh, excuse-moi, j'avais la tête ailleurs déjà. C'est que je viens de conclure l'affaire du siècle. Mmh. On dirait que n'est que assistante, je suis plus au courant de rien. En effet, je ne dîne pas avec mes employés. À compter de cet instant, je suis le second actionnaire majoritaire de Golden. Encore une fois.

dañuy jéem a gisante ak autorité yi ndax ñu lijjante usine yi di sànni seen déchet ci géej bi est xam nga ne nit ñi fi dañ laa bëgg <laughs> maire bi xalaatoon damaa bëgg placer lii de bu ko fekkee woon am lu ko métti mais xam nga rek yëpp su amee tey grâce à Aïs Fall moo tax te ñu ñëpp duñu war a sant Aïs Aïs Fall moo waral yëpp am moo jénee gars yi ñëpp ñëw fii pour man daal sant daal duñu waral ah, ah sama gars Aïcha Fall la de Aïcha Fall Aïcha Fall je Fall Aïcha Fall xamoon naa ko mais xamoon naa ne a Des day def politique politique moo ko de ah bon ah mais oui elle fait de la politique non dans ce cas monsieur le maire qui cette dame là il faut mu jóg ce ah mais oui il le faut en tout cas fais tout ce que tu dois faire fais quelque chose defal lépp loo war faire..! def man ci mon naval kon nag monsieur le maire waaw ñu def ko ñu doon defee rek ah, monsieur le maire voilà c'est bon rek ma pang are boy mu ni ko wow sa soxor nga are bi moom du pour man ko non sa <laughs> que yow udah zaaru dëkk yu sori yooyu nga xam booy dem sareet ngay jël mo lay yóbbu booy da <laughs> ngay ko sa si Oumi Zou. Zou Oumi. Zou Zou Oumi. Salut Zou, ça va hey, boy, Comment tu vas Khalid, je peux te parler deux secondes. Mais Maïni, non Je veux te parler seul. Mais on est seul. Ah, oups. Zou <laughs> Zou, mais Zou, on est pas depuis longtemps en train d'ensemble. C'est mon pote, les gars. Pourquoi? <laughs> Allez. xale lan mooy xeeti néeg bi ak zoom yi nii nga mu présenté kan la. xale yow laay waxal.

yow laay waxal xool ma putain mais regarde-moi man ak yow jeex na amatul dara suñu diggante yow xam nga bi ma naan la jeex na yàgg na dóor bi nga ma dóor su ma moom lu may xool naa la def ci ko jur génnal gaale bi te xool bu fi ñëw di man bu la dàqal tey bu fi ñëw di

ok mais booy après am nañu waxtaan quoi am ak yow. gis nga tey seet seetal bi ñaari nit ñoo ma si rey quoi Aïcha Fall daa jékki-jékki rek xam reng si nag reng bu bu El Hadj ñibbi nee na buy ñibbi dawalal. non bu ça va xam nga kañ la ma daaj. ba ma xoolee lu mu sol. benn paa bu doon ngacc foos yooyu la ma doon nuru mais dama ko xool rek. loolu wax loolu li nga koy wax lépp ah. yooyu. yow eh. ngay liggéeyloo nit ñi buñ lay woo doo xamoon naa ne bu problème amee di nga xam fan la may fekk. seetlu nga tey doomu maa as. gis nga ko <laughs> muy téye buré <laughs> ak ndawaay bi ndawaay bi. muy ay am xew. Fadel dem dugg Golden. lan mais loolu nan la mënee nekk. loolu xawma si dara ok sa waa ji waxoo ne il était aussi flippant dafa bizarre quoi he's strange I don't know peut-être est-ce que amu fa benn topp boo xamante ne moom moo koy balayal champ bi. mais yow lan mooy sa liggéey foofu. sa liggéey pour xam lépp lu muy lijjanti ak képp ku muy wax loolooy sa liggéey pour xam ne nga ñëw tey di ma wax ay am na benn tóob te mënoo ma wax tóob bi kan la. xoolal ñun dañoo signé deal ok mais man xaw ma ne sa waa ji nii la mel il est mystérieux il est flippant man bii wax sax dama koy ragal. ba pare looy waaj wax sax waaj da koy xam bu looy xool sax nga xam ne kii xam ne fi nga jëm neexuta nax. j'espère que nekkoo foofu di nobante ak moom ay di nouer ay relation ay xolal man taluma ay nobante ki li ma koy doyee danga may fay ma def sa liggéey un point c'est tout ok hey eh, James Bond eh dama fay sama xaalis yow bu subaa ñu wax ci waxu xaalis bi et j'espère que sama carte bancaire yi ngi dox ba léegi calmer il faut nga dalu ça sert à rien de t'énerver comme ça. mais mais Aïcha yow mënoo comprendre kooku nu nous mel Aïcha kooku il est tellement dangereux Faut ko natt rek weesu na ko bu doon tey dafa bëgg dugg ci Golden pour ay liggéey wala ay affaire affaire wala or grave, parce que liggéey liggéey la te bokkoon na ci famille bi mais ki yàq qui ko tax a détruire sa famille loolu ko tax a jóg. mais loolu si jamais tu laisses tes émotions prendre le dessus comme ça mais tu vas perdre le contrôle. Ah, mais Aïcha foog ma xool me euh, ma de faut ma dellu kër ah en tout cas bul fàtte li nga fi dikk. non foog ma def loolu su ma defee loolu ba pare dinaa ñëw ñu yeggal. James attention attention. Aïcha dawal dawal Aïcha. Euh, fossil Ouais. Ah, attendez. Euh, euh, excusez-moi tous, notre nouvel associé est là. Allez-y, on ne fait pas attendre un actionnaire. Alors moi c'est Monsieur Daouda Diop. Diop. Ah oui <laughs> Enchanté Bienvenue, très content. <laughs> Alors je vous présente euh, Madame Sonko. Madeleine Sonko. <laughs> Comment vas-tu Je vais bien et toi Linan Adina Oh là là Je femme associée. Ah, modestement pour vous servir. <laughs> Bienvenue. Alors, Léna.. Euh, Lena, Madame Gaï, conseiller juridique de Golden, associée aussi. Ah, Madame Gaï, Lena. Associée, vous avez dit Oui, associée. Je vous présente Monsieur Kader. Monsieur Kader Kader, oui, Kader. Damba. <laughs> Waouh. Enchanté. Toujours aussi vigoureux. et la dame de fer, Madame Gaï, Madigan, la dame de fer. Pour les présentations, ça va suffire. Oh.